Euh, jërëjëf Seydou Sass Basila Kane ñu ngi ñëwaat rek wutuwaat mbokki internet yëpp di la laaj laaj bu am solo ngi li ñuy wax euh, istixaar listixaar listixaar nag dafa am ñuy wax ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ko def daan na digle ñi di ko def itam ñii ne listixaar dagan na ñii ne daganul léegi listixaar lan la ci lislaam wax ak lan nga mën a baaxe mbokk yi waaye nag ñu ñaan la rek ngi jëm yonent bi nga jox ñu loo xam ne yonent bi ci boppam nee nañ apprécié woon na ko. muy li ñuy wax istikhar ban istikhar moy bi nga xamne julit bu ko def te def ko ni ko wara defé yalla cianam dina la won sa ciakutef ci anam bo xamne bo yewoo di nga xam fan ngay jaar. Eh, eh, istikhara dafa am nax istikhara am isti istishara moy mooy diisoog ku lay orienté ci xelam mu rafet istikhara moy tànnalu ci mbir fa nga cey jëm ak la nga cey japp ak la ngay loolu mu ngi ci diine ni fàng waaye ñun sunu professeur suñu Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum moo nu ci orienté bu baax a baax am na nag ay sist ay kayfiya waaye dinaa ba la ma ciy wax rek damay nettali keroog bi Alaaji Siise ji nga génnee àdduna ndeysaan yal na ko yàlla yërëm eh, doomu sëriñ Cheikh bi ñuy wax eh, Abdourahman si dafa doon nettali nee na dafa dama laaj sëriñ Cheikh ne ko ndax mënoo ma jox benn istixaar bu bu ma mën di jëfandikoo nee na Serigne Cheikh ni ko ah am na ci kayfiye bu ma sëñ Babacar joxoon de waaye dafa xaw a diis waaye lu ne ngay gis waaye dafa xaw a diis waaye ni ko ah te ma laa wax rek si xaar bu gën a wóor mu ne ko ban la mu ne ko gudd fan mu ne ko gudd fan daal boo ko amee daal baax na ndax di nga mën a xam lu bari loolu moom la ko Serigne Cheikh tënkal mais Serigne Cheikh ci jàngaleem dafa wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëw laata muy ñëw mag mag ñi dañ daan def ñu bari boog dañ daan def bu mbas amee ci dëkk par exemple xale ya di dee xamuñu lan la waa dëkk ba daje daal di laaj lu mel ni cotisation jënd ab gàtt rendi ko saraxe ko daal di ñaan bu ñu ñaanee ba dellu ci kër ya bu guddee du ci ñàkk ku gént ñu wax ko mbas mi lu ko waral ak nu mu demee ak lu koy faj bu ñu dajewaate ci pénc ma ku ne laaj la loo gis ñu jaare fofu pour am luñu xam muy cosaan ci listixaar mais néna bi ba yonent bi ñëwé nak dafa am bu mu joxe te lolu mi ngi ci téré yi hadith yu bari bari allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika fa innaka wa la aalamu wa anta 'allamul ghuyub اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي dunyaay wa فاقدره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي fasrif nii anhu waqdu lil xayru xay sukkaana waaw wala boog texte bi nu mel noon daal la texte boobu la yonent bi joxe bon ñu bari nag dañu ñaan la ñaan la goo xam ne daal comme da nga cee ñaan yàlla bu dee lu bon la doo ca dugg bu dee lu baax la yàlla dina la ko yombalal ba nga dugg ci te dina sotti mais nag bi ko yonent bi joxee Cheikh Tidiane Chérif moom dafa koo jël dugal ci ay julli. ak système maanaam daf ko mooñaat boo demee ci ahzabul awraad di nga ko ci fekk façon boo xam ne boo ko ne defee yàlla mën na la wan yow képp jaratul sax muy nekk mbooloo muy daje waaye yow képp boo ko defee rek yàlla mën na la am lu mu la xamal mais seen cheikh nee na bu ca sa may àggee du jar sax nga di ko def di tëdd fa nga koy defee ci saa si rek fa ngay daal di xamee résultat yi te loolu boo demee ci xayatul amaan yi téere la bu jàngale tarixa bi wax nañ ni bu fekkee dafa am mbir mu la lënt nga bëgg mu leer nga toog ci benn bref def téeméeri salatul fatih yéene ko cheikh nee na bala nga fiy jóg dina am lu tabit sa xol xamal la li nga li war li nga war a def ak li nga war a bàyyi loolu nag xam naa ni niveau lay doon moo tax istixaar am na nag ay kayfiye yu bëree bëri boo demee ci téere téere asraar yi dinañ la jàngal ne am na yu bari xëy na dinaa la ci baaxe benn rek bu ko defee te daw te dawati daw làqadu ci ndax yow lu ne la nga koy luqutu surtout Yaasin dañ ciy def istixaar dundoon naa la njariñ yi ci nekk Yaasin moom yonent bi nee na li maa quriya kenn mënul weddi comme nee na loo ko jàngee am loo ko jàngee yonent moo ko wax Yaasin li maa quriya ni mu waxee ni zam-zam li maa shuriba noonu la waxee ne Yaasin li maa quriya loo ko jàngee yàlla mën na la cee sutura am na sax ñu may dégg ñu ne istixaar ay benn borom xam de bu ne ci réew mi ni istixaar ay tapale la waaw nu muy nekkee tapale ab jaam sañul. bu jullee gee ba pare tàllal loxo ñaan yàlla ni ko wan ma nangam sañu ko waaw bu ko yàlla wanee nag loo ci loo ci mën yow ñaanu la yàlla la ñaan ni yàlla wan ma nangam yàlla wan na ko ko loo ci man foofu kay nag lu araam amu fi bu dee surtout yaasin yaa surtout yaasin juróom-ñaari mu biin mu biin kon xam ne li muy tekki mooy lu leer lu lu leer naññ am na ci turi sax boo xam ne mu biin juróom-ñaari mu biin moo nekk surtout yaasin soo tàmbalee saar wi mu biin boo ko déchiffré cent deux la lay jox hmm? cent deux la lay jox mim bi quarante la yaa mi ngi ci biir yaa bi xëcc baa bi boo ko boolee quarante cinquante lay doon ah du cinquante lay doon noon gi ci fin bi cinquante la boo ko boolee du doon cent baa bi nag baa bi nekk deux muy cent deux booy jàng yaasin ba ci mubiin ngay yaa biinu Ya mubinu, ya mubinu, mu wala nga ni mu mubin mu ci def ya ça dépend 102 fois dal di kon saar bi bo demee ci benen mu def nonu bo demee ci benen mu def nonu ba sar bi jeex nga ñaan yalla ne ko bëggon na luma ma leer ci mbir sangam yalla yow moy sab sang mo la bind neena ñaan leen ma may leen nga ne ko yalla wan ma dama bëggoon luma leer ci digënté bi ndaw si ma bëgg tak wala ndaw si du bëgg tak ndax baax ndax njiglay la auto bi mi bëgg jënd ndax baax na ndax sama lay la ndax loraange newu ci place bi ma bëgg dugg ndax place bi ma ci duggee dina nekk dina dox ah tukki bi may bëgg tukki ndax tukki bi dina am ndam ndax dinaa ag ci jàmm mais loolu est-ce que ab jam suñu ko ñaan yàlla problème bi nag mooy boo gisee neel gis naa boo gisul nga ni gisuma danger bi yépp mooy gisoo ba pare ni tey tey par force ma gis suma gisul dina inventé wax waaw malik si laaji Malick moom ndeysaan ci ma sa na ñëw ni ko dama bëggoon nga fanano ma yëkëti ñeen fuk mu la man xawma dina yewum de be fanano kenn te ku na xam na ne si laaji ba mu naan umyul basairi basaayir yi laa yaraw na bi annani chimtul buruqa tudiu naxwal mashriqi toog fii ci Sénégal di janoog lamp ya ca Màkka kooku xam nga ni ko istixaarloo bu nekkuloon nit ku modeste di nitu mesure boo indi lay xaalis mu nangu inconvénient bi tamit listixaar boo xam ne benn guddi di nga jël xaalisu listixaaru ñaar fukki nit ma ne yow xanaa kon guddi gi moom ay séquences kese lay doon am na ñoo xam nag xaalis yooyu ñuy jël du ñu la defal istixaar dañu lay defal ramli sa sa tur la ñuy jël déchiffré ko fanaanee toog guddi gi yëpp bu ñu déchiffré bi toog xam résultat yi teg déchiffré bi xam résultat yi teg soo ñëwee ñu wax la mais loola jógewul ci istixaar boo xam ne génte la koy wan ci xam-xamu ramli boo demee ci téere bu ñuy wax man ba lii ramliya danañ la ko fa jàngal waaye benn guddi nga ne da ngay listixaar tëdd yàlla war laa wan nga récupéré ñaar téeméeri wala ñeenti téeméeri fukki nit wala ñaar fukki nit ku ci nekk war a xëy si wala mu woola téléphone nga wax ko li nga gis boo moytuwul mën nga cee am si digganteeg yàlla mën nga cee am ak moom problème waaw loolu daal moom maa ngi la ci maa ngi la ko ciy xamal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.